mel dal nañu ci annonce ay poursuites judiciaires. waaw mais c'est normal. c'est normal parce que xam nga xam nga dafa mel ne loolu diffamation la. Hmm. waaw dañ laa dañ diffamation la te comme diffamation la c'est normal que mu dem setal deram hmm. parce que da koy yàq day yàq réputation moom parce que la plupart nit ñi bu ñu waxee Égypte rek xam nga fan la ka la xalaat. Tariq Ramadan la xalaat. parce que tariq ramadan dafa am lu mu si mm. seen si mouvement mm. islamique bi mm. foofu tariq ramadan il est respecté léegi nag comme moom de gis na ni lii dañ leen a tuumaal mais c'est normal mu dem te justice dafa war a topp loolu ba mu jeex tàkk bu waree ñu teg daan ki wax loolu ñu teg ko daan alors mais doo jël rek accuser nit ñi nii rek tey Mambay Niang ak Sonko benn affaire bu ndaw ñu ne la diffamation la tey fan la mujjee ñoo ngi nii di xaar procès ba léegi kon comme ñoom ñoom ñoo difa dañ ne dañ leen diffamé woon fii nag ñoom ñoo diffamé nañ dem si yoon alors euh, mais Cheikh Yérim Seck tontu na à la minute qui suit euh, génn na wax na que ni euh, moom ba léegi waxul Tariq Ramadan parce que kenn euh, cité wu ko exactement te itam nee na Tariq Ramadan bu mu profité wu di ko tontu parce que li mu ko war tontu bëri na mi ngi ñëw dans les jours à venir dina defaat yenn révélation jëmale si Tariq Ramadan. par rapport ñu ne ñoom ak seen ay maam ñoo nekkoon benn benn organisation terrorisme ngeen baam si kàddu gi exactement Cheikh Yérim loolu daal di tontu ki nga xam nekk moo di Tariq nee na euh, mi ngi ñëwaat ak d'autres révélations exactement il aura le temps de bien répondre ba mu yàqugum li na xam nekk moo di salivam alors naka nga daal di yàq naka nga daal di euh, li na xam nekk moo di jàngatee la persistance bu ki nga xam nekk moo di Cheikh Yérim Seck allant même de dire que euh, ñoom ñoo nekkoon ay ay benn organisation jëm si wàllu ko terrorisme fii si àdduna waaw léegi xam nga xam nga ñoom ñu si ëpp tubaab yi dañuy jël ay moo jàngal leen ko ñu ñëw après di ko xëpp nit ñi quoi. Hmm. ay mots terrorisme ak mu radical ak mu lu nekk ñu jël ko di ko jàngal nit ñi ñoom ñu nekk si ñoom les journalistes bëgg si moy bëgg bëgg jàpp ni ñoom xam nañ léegi moom am na lu mu yor ñoo ngi koy seetaan moom bu fekkee am na lu mu yor rek xam na ni organisation bi organisation terroriste il a des preuves moom na dem l' essentiel mooy Tariq yor na ay xam na bu baax lu tax mu saisir bu warul woon saisir en tant euh, pour kii diffamation du du leen saisir. Hmm. waaw parce que xam na bu baax lu tax mu saisir moom nag bu fekkee liñ ko li ko. tari li ko tari euh, Ramadan parce que. Euh, ban preuve daa yor preuve dafa yor preuve amul dara. instant yi dafay wax pour pour diver pour divertir nit ñi rek. mais oustaz est-ce que amul si lu mu toog. ah léegi bu amee si lu mu toog nañ na ko génnee bu amee si lu mu toog rek na ko génnee. na dem wuyu ji ñu ko woowee. justice mais comment gratuitement nii. ah léegi na dem wuyu ji na dem na dem génne ay preuve am. xam nga moom na moom ñuy xaar si procureur mooy mu saisir rek. jël affaire bi en main dem woo leen ñoom ñu génnee preuve yi comme nee nañ yor nañu ay preuve de douze milliards dugg na fi moom it yor na ay preuve affaire terrorisme loolu bis bu demee ba yegg fa. Hmm. na génnee ay preuve gis nga fii dëkk bi bépp information boo fi mënta teg nit ñi dinañ ko gis waaw moom yor na na génnee. bu mu am dara lu muy ragal bu mu wax kii daa teel a tontoog wala déedéet bu amee lu mu koy accuser rek na ko dem mu accuser ko ko directement jaru sax muy toog télé na jël preuve yooyu yëpp yóbbu ko fi mu koy yóbbu xam nga xam nga yor toog si télé naan diw terroriste la diw sàcc la diw la loolu dafa yomb boo da nga yor preuve nga dem si fi nga xam ne foofu la mbaxane doon a benn nga dem déposer ko fa nga ne diw miikat kat moom moo def lii mm. ñu woo diw moom ngeen toog yéen ñaar waaye toog si tele rek di wax loolu moom moo loolu moom moo war a jeex toog si télé rek wax lu la neex après nit ñi bàyyi la nga dem te fekk yow li nga wax amoo si benn dara lu leer moom bu amee lu ko leer rek di ko génnee teg ko. Hmm, yaa ngi parce que dès l'instant que moom bi mu toogee moom si télé di wax. dem na sax bay nuancé naan naan ay euh, leeruma sax ndax jot na ko wala am na ko wala di di nuancé sax waxam pour jëm si génnaat loolu mooy wane ni moom amul dara lu leer. nit boo demee bay wax lu leer da ngay teg sur la table. Hmm. comme metre Moussa jóob ni mu def. génne document maire Moussa Diop man dama ko naw saa yu toogee en tant que avocat dafay génnee document ne document baa ngi nii mais loolu mooy yoon <laughs> léegi nag bu fekkee document boobu c'est vrai ñu xam ne c'est bu mm. fekkee document boobu c'est faux mm. mais ñu teg ko daan yi nga xam ne moom lañ ko war a teg mais bu fekkee nit ki da ngay toog wax nii rek non 12 milliards dugg na si dëkk bi diw lañ ko jox wala fii la jaar après mu jeex mu jeex alors euh, mais euh, euh, ki xam ne que moo di Madiambal aussi ñëwaat aussi ak benn réplique yéen waa li nga xam nekk moo di MRDS di ngeen àndaloon Ousmane Sonko avant coalition jot na ki nga xam nekk moo di Madiaba jaañ mu ne y benn conférence de benn conférence boo xam ni itam Tariq Ramadan moo ko organisé woon en 2013 su conférence boobu noonu ñu gisoon si ay leaders yu passif tey jii ñu koy incarné exactement Madiaba Diagne ba tey mooy wax samay kàddu ñu ne conférence boobu noonu moo jox naissance li nga xam nekk moo di parti passif. Euh, loolu tamit nag ngeen ko daal di jàngatee parce que yéen doolu ñu bees du ànd passé parce que yàgg neen ànd di coaliser à travers li nga xam nekk moo di euh, certaines élections exactement alors kaddu Madiambal Diagne yi nga xam ne itam yëkki na ko euh, yéen naka ngeen ko jàngatee mu ne li nga xam nekk moo di Tariq Ramadan moo jox naissance li nga xam nekk moo di parti Pastef si benn conférence de bi nga xam ne doon nañu amal si université benn amphithéâtre que même les vidéos sont toujours sur YouTube c'est que xam nga man dafa am dafa nit ñoo xam ne wax dëgg fa yàlla bëgg yàq deru nit rek dina tax ñu jël sax turu fàllu sax ñoo kole ko ko. ne ko hmm. yow dëgg fàllu nga tudd. Hmm. waaw pour yàq deram conférence bi muy wax Tariq Ramadan def ko fii Dakar di wax c'était sur la diversité l'adversité la diversité dans la l'adversité. nekkoon ay partis politiques. conférence bi man déglu naa ko c'était la diversité dans l'adversité. ok xam nga moom ndax daa déggul français wala bu fekkee dégg na france na dem dégluwaat. Hmm. léegi nag conférence boo xam ne ay nit dañ leen fa invité ñu ñëw toog nga ne conférence boobu diw moomu moom moo jur Pastef ak moom moo jur loolu loolu c'est très c'est dafa dafa léger trop quoi. Hmm. bu borom xam-xam xam wala ku ñu ne borom xam-xam nga. Hmm. wala journaliste nga wala loo mënta doon. boo demee di toog di wax walaay bul ay légèreté noonu rek sànni ko Tariq Ramadan moom moo tax ñu ñu ñu ñu kii Pastef loolu loolu loolu fan la ko fan la ko jëlee si xelam rek xam nga ñëw toog xalaat benn mbir rek xalaat ay événement ñëw dajala rek recouper leen dajala leen def leen benn événement loolu moo baaxul. waaw événement bu nekk dafa am lu ko tax a jóg. Hmm. conférence boo xam ne dañ faa invité ay nit ñu ñëw toog nga gis leen fa. Hmm. te nee na conférence 2013 la. Pastef kañ lañ ko kañ lañ ko sos 2014. léegi ñi fa toogoon. kan moo leen waxoon ni yéen di ngeen di ngeen taxawal parti bu tudd Pastef en 2014 te loolu muy wax parti Pastef ñun si écho yu ñu am biñ ko fal bi ñu koy fal deux 2014 Sonko si boppam sax moom si boppam moo waxal ni man créé wu ma Pastef ñi créé Pastef dañ kaa créé ba pare woo ko nekk ko ñun kaay yow la ñu bëgg nga jiite Pastef mu ne leen li ngeen ma li ngeen bëgg def nii kat est-ce que xam ngeen danger yi si nekk est-ce que xam ngeen nu mu toll. ngay mm. nekk ñun pare nañ pour lépp. Mm. gars mu ne leen acca nañ si dem. kon koo xam ne moom créewul sax Pastef nga bëgg toog di ko askanelee loo xam ne loolu moom di du du mbiram yaa ngi tooñ. gis nga sonkoo dafa baax Sonko ñi ko fi diffamé yëpp bu leen neexoon tey mu porté leen plainte mais tey ji période bi bu leen porté bu leen porté plainte plainte yi du am suite moom laa foofu laa bëggoon ñëw parce que ñaata plainte ay 27 plainte def na ko mais ba léegi kenn waxu si dara loolu ñu ne état de droit lañ nañu wax si plainte yooyu mu déposé woon nañ ko sulli mais du dem fenn moo tax da leen di seetaan nañu wax gis nga nag nit ku nekk si dëgg di dox si yoonu dëgg nit ñi nekk sa ginnaaw di wax loolu bu mu la teree avancé doxal rek moom nag continuer moom yoonam gars yi du tee dañuy wax parce que moom sénégalais moom lu si ëpp bu fekkee ñoo ngi lay gis ngay avancé rek dinañ jéem ut lu ñu lay kole pour yàqal la mais oustaz euh, xam mu ne oustaz sax euh, euh, oustaz Mohamed yaa suñu oustaz internet yi ñu ngi rafet lu baax wax waxtaan wi mais naka leen war daal di wala mën a analyser li na xam nekk moo di psychologie parce que dañuy naan tout le temps que dafa am mayu suñu borom exactement loin justement si coow li ak débat yi ak accusation mais malgré cela toujours am na lu ñëw pour seetal ko exactement ban analyse nga siy def. waa parce que dafa dafa dëggu digganteem ak boromam rek. mun hmm. naa la waxoon hmm. waxoon naa la ko un jour. Hmm. naa Euh, li ko li ko yàlla teg natt mooy si waxam la ndax dëggoom nit boo dëggoo boo waxee nga xam ne yàlla dalay natt sa wax yàlla dafa ne ndax nit ñi dañuy euh, dañuy wax rek gëm nañ te duma leen natt mu ne dinaa leen teg nattu hmm. xool ak ñan si ñoom ñooy wax dëgg ak ñan si ñoom ñooy fen hmm. léegi nag boo ne yow da gëm yàlla yàlla rek nga doyloo yàlla nee dama lay teg nattu pour xool wax jooju nga wax ndax dëgg la wala du dëgg léegi nag moom dëggoom moom moo ko moom moo ko yóbbu fii hmm. dëggoom moo tax mu am nattu yi ba pare fan yële maa ngi déglu euh, ñenn ñi nga xam ne demoon nañ seeti ko hmm. xam nga bi ñu demee seeti ko loolu la ñuy wax dañ naan il en forme il en bonne santé waaye tamit ku nangu ndogalu yàlla la ba pare day toog di leen koy wax naan leen kat nit danga nga war a nangu ndogalu yàlla hmm. gëm dogal bi yàlla teg si yow mu baax wala mu mu neex wala mu naqari loolu jullit bu nekk da nga war a am jullit boo demee ba gëmatoo ndogal mu neex ak mu naqari rek yow sa jull sa gëm-gëm boobu wàññeeku na. te moom nag toll na foofu. Mm. te loolu dëgëre la. am na ñoo xam ne tey bu leen dara lu naqari dalee xam nga la la ñuy wax dañ naan diw moo ma ko teg. waaw dañ naan noo du sax xaadi de dañ naan diw moom ma ko teg au lieu que ñu ne yàlla moo ma teg lii de fàtte nañ diw mi donte ni jaar na si diw de mais dañu naan yàlla moo ma ko teg. Mm. dama koy nangu moom fa la toll. nit ki nag boo demee nag ba toll foofu nag wax dëgg fa yàlla dañ lay dañ lay seedeel ay jëf yu baax te moom ah. nit ñi dañ koy seedeel ay jëf yu baax jëf yu baax yu boobu boobu nag ak gëm-gëm bi mu nekk mais la budd ni yàlla dina dina ko teg ay nattu te moom nangu na nattu yooyu te xam na ko xam nga nit bu demee ba toog di la naan yàlla moo ñuy teg nattu te nattu bu mu mënta teg man pare naa pour dékku ko hmm. kon kooku kon il est il est prêt il est prêt waaw alors euh, Ahmed dañuy daal di li nga xam ne que moo di échéance yi présidentielle 2020